toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal toogal waxtaan bi laa bëgg a jël jëlal lépp yàgg jëlal lépp yàgg. loolu xalaatuñ ko sax lamb daa am yoon kii dafee def loo xam ne nii. waaw mais Ndiakhou Sarr ñu waaw maa ngi lay fay biram. waaw mais Ndiakhou lan moo xew dañu gis champion bi yëngu am ñu ñëw tëru ko lu xew. waaw gëj lamb moo baaxul day gëj lamb rek mais moom ci lamb la bokk dafa def loo xam ne bii moom dafa war dimanche bu jot mu ñëw lamb bakko lamb dañ lay fàtte rek mais ku entraîné ñëwaat donc euh, Assane Ndiaye pare na pour tëgg combat am képp koo xam ne bëgg nga ko nga ñëw istaf bi waxtaan bu baaxee ñu jël combat bi ñu bëre ko. mais am na koo xam ne moo ko tëgg. moom moom moo ko dëkk. ñëw fekk ko ci biir waaw du yoon nag mu jël Sambala man anduma ci loolu Sambala defu fi loo xamante ne war naa mën a bëreeg Sangu Diané soxlawuñu Sambala. sambalaa foo ko teg. non soxlawuñ ko na jaar fi gars yi jaar ba pare si kanam. des na dafa des baax na baax na ku ci bëgg na ñëw. booy ñaar deux baax na booy ñaar deux baax ku ci bongoon mais champion. loolu tànn du tànn damaa liggéey prouvé amal nga du tànn quoi da ngay liggéey ñoom ma soxla ba ma ci digg terrain bi yoon la nag ma du attaar incha allah du maag Zambala quoi waaw adversaire quoi jox ma ko. bu dul Zambala comme ça koo fi wax day naan da ngay tànn quoi wax da nga koy jogal ba ma sànq moom. am na ñëwee Tafa Boy Bambara. waaw ko bagage. barke Serigne Touba baax na ma ñoon bu jógee Gambie nag billahi pare naa barke Serigne Touba pare naa ah, Baye ma ñoon roi des arènes lay bëre Gambie d'accord mais waaye roi des arènes bu yàlla man sa bu yàlla tudd waaw dama liggéey état ñu war ma jox Baye ma ñoon yoonu lamb la quoi parce que ñu dañ ma yàkkam di trop barke Serigne Touba may gërëm maa ko ñaan ñëpp dina gërëm daal Sarr Mbaye Diop maa ngi lay ziar waaw ko fay naa la ci loo ne waaw ñu sant yàlla noo dikk tey eh, tey ko kanam tuuti la ko gars yi ñu gis saa dañ maa bi di bërantu nii wala may def ay yëngu waruma li war xam nga lan la ci biir géew bi si kanam tuuti ma wan leen sama bopp. yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla may ndam bi jeudi passé bi ngeen fii génn da ngeen fii génn ak defet tey nu ngeen dikkewaat waaw comme sens bi ñëwee woon rek lañ ñëwewaat ndax ki ñu jugee bii passé jeudi mérité wul loolu mais tey nga daan suba ñu daan la làmb noonu la quoi mais tey nag ñuy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ndam ci kaw Forza 2. daal tey boo duggee Iba Mar ñaari cumukaay yëpp ñoo bokk fu ñu ne bu taxee ak bu Forza 2 xool nga bële tamit ci droite bi ñoom daal ñoo séddoo droite bi tey am na lu nekk nag ci ruq bi yaakaar naa ne fëgal fëgal fii lan moo fi nekk droite bi. Ah? lu nekk fii ci ruq bi. xaw ma lu fi ne ah, ay cumukaay ah yéen ñëpp a ko boot de. ay cumukaay daal lañ fi. waaw père grand combat lay bëre. Siteu ngoongu taxaw Siteu bu jàmm gën Abou Niasse kaay taala jëlal lii xoolal lii Mama Lamine ak waa Fass waxtaan moog Serigne Ndiaye numéro 2. barke alxuraan tegal iPhone nga teg iPhone ma teg sama iPhone. nga teg iPhone ma teg sama iPhone. ci combat bi. takk dina ko dina ko daan maa ñii ñii xam nga xamee wax boo waxee ñoom ñoom bu ñu nii ab tur bu ñu bëree ab tur bu ñu bëree moom champion la mbër la mais si kanam fii taxe da ngay taxal suuf. waaye non man damaa génn bees ma ma taxal bu ma taxal kii nan la ñuy taxal bu la la tudd taxe ah kii day tax tey rip. waaw du tax dara yow. affaire bi tax la. Forza ba mu dee. kii lañ soxla un bi. un bi arbe soufflé na eh Boy Lo gauche Yaa Khady droite ñu ngi dóor Yaa eh, saf na de la Yaa doo fayam waaw fayu na de fayuwaat Yaa Khady ndu ñaan la jógee eh, daw na dóor ko jël ko waaye yéen mi saf na sàpp di moot mo bañ jeex jogaat jeex jog Yaa Khady du Boy ko eh Boy Lo tefes gi bot nañu Boy mu bañ dawalante ñu ngay dawalante waay waay ñu ngay dawalante dawal dawal dawal dawal saaku ya léegi léegi la laa loolu saf na sap ba pare booy loo foofu yaakaar teg dañ lay mboot yaakaar yi wala lan mu bañ eh la daal di Lamine sàcc nañu ko Lamine Seck sàcc nañu daal ya sàcc nañu daal ya. naña Ngunjaan Joor Ngunjaan Pey waa cangaay ak waas cangaay waajaan ak mbuur kilom laak mur waay ak mbuur Babacar doy na waar yaa xadi boy loo yaa xadi boy loo la ilaha illallah doy na waar Babacar ah loo ci mën a dégg day saf na sap combat saf na sap dafa ma xam nga boy loo moo ko gën a miin bëre arène waaw loolu tam dafay joué ci combat Babacar wax nga dëgg biram xam nga lamb ku la ko gën a miin ku ne mën na am ay poñ yu la yóbbee loolu téere la kon euh, ñoom ñaar ñaari xale lay attention. essayer di jongale. jongale mu bañ da ngay génn. yaa xadi. Eh, déet waay waay déet waay yow mii yaa xadi mën naa bëre kat waaye yéen yaa xadi mii du cuune di. ee eh, booy loo. tekki sengoor ya sànni. sengoor yaa ko Senghor yaa ko sonal Boy Lo tekki na Senghor ya xam nga ca la yaa xadi daan jaflu. Eh, koy songule da lay wër ndombo. war na ko yaa xadi buddi na ko door na ko ci suuf waaw. eh doomi biram ñi la xoolal doomi la yaa xadi yaa doomi biram xoolal biram jëlal biram jëlal biram biram ñi bu lewtoo doom ja daan na wala boog rakk ja daan na waaw rakkam la. yaa xadi rakki Birama yàgga ngi rek ñun dañoo yàgg si compétir wax waxoon naa ko si signature ba man dama jëlee ay nag ba doyal barki alxuraan kon mbërum mbapat nga man mbërum mbapat laa dem nga ci ardo faju dama fay gis ay poids lourds yoo xam ne ñu fiy jël man daan naa leen billaa wallaay loo bokk ak Birame Gningue ah Birame Gningue loo bokk ak Birame Gningue sama mag la ñoo bokk ndey ak baay sama mag la sama lépp la di sant ñëpp di sant Wangu Ndiaye di sant Birame Ngingue di sant sama entraîneur di sant ñëpp bàyyiwuma kenn di sant waa mouvement Teranga jàppale nañ ma si combat bu baax oui. tur yaaxat bi la ah. waral yaaxat. yaaxat bi. non dañ ma ko joxoon noonu rek. ku la ko jox. gars yi ñoo ma ko joxoon rek. yaaxat lu waral ah. Birame nee na ko bul wax. <laughs> Birame ngay sot nee na ko bul wax. Cey taala li may gis neexuma. su ma mas a neex per mag. tey taala. mbëri dogale nañu taala. mais eh, per fu ngeen tollu per. waa ñu ngi ci. na pare na per. non ñëpp a pare ñun ñoo ci des ñun promoteur nañu ñaanal rek. ana xaalis bi per. ndax Leewtoo yokkute lamb la. ndax day bëgg journée bu ne fee écrit bëre ko nañu ñaanal ñu ngi ci. ñu ngi ci Babacar. Babacar dàquma laa jàng. dàquma laa jàng. yaay sama meetar. Eh, jërëjëf. <laughs> Talla Ndiaye Baba Maal féete droite takk takkaay yu bari moo gën a njool moo xees waaye ki mu ko seqal moom mooy Boy Tine Boy Tine jiital pied gauche eh Baba Maal tuur na ko mu daanu waaye yéen yooyu yéen eh Lamine Maal Baba Maal dinañu daan Baba Maal de dinañu daan Baba Maal wala Baba Maal ak Boy xeex. Baba Maal dañ lay daan eh waaye la eh Baba Maal tuur na baaf la baal ma baal waaye kii am feccal yemul ci dikkam ab këx la dikkam kii déggul dikkam déggul dikkam déggul dikkam taala kii am feccal yemul ci dikkam daar ba du baaba maal baaba maal waaye dikkam waaye dikkam supporter yaa ngay daw waaye dikkam waay ay doomu jaamu gën lañ parce que Serigne Bamba ñun ay gone lañ nekk si yoon duñ waaw duñ liggéey bëgg nañ képp jàmm gën si kamba ñëpp ñëw jàppale ñu xëy na xajul fii mais après dañ si yow waa jàmm gën ñoo la bëgg barke saf safi barke Sidina moom loolu laa bëgg bëgg ma ni yow mi saf safi mi saf safi bari na nag billaay yi ñetti maawo grand père maxu ñëpp ci la mais combat bi jeex ngay dóor il faut que sama xol moo tàng sama xol nii mu bëgg gars yi deful ma ko. billahi wallahi ruwaay pare mi barke Sidina barke sama ndey sama ba bu nga nga nga tëj taal ba teg te laa waxee tee sama waa doo ñu may yillo bokk ay yillo taa yillo ay yillo ay ay yillo ay yillo ay Talla Ndiaye leng sëg Mam Mor Mam Mor ma ko xoolee sama xëy na dem ci Ousa numéro 1 bu xeesoon. waaw waaw Ousa rek laay gis tay bu xeesoon. nee na roog mbalax la bëgg andiwaat. eh waaw ba tay bu ko neexee loolu man naa ne. nee na roog mbalax yaa ngi fàttaliku roog mbalax. roog mbalax ndem si yàlla. ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm amiin amiin moo roog énergie buñ ko tuddee. Mm, moom bokkoon na ci ñu ko waral. moo woyoon roog mbalax bu paase yaay sunu champion. yaay sunu champion. eh ñu ngi lay waatoo Lamine waaw. Mamor droite Lengs fayu na de dóor mu daanu Mamor daan na Lengs la ilaha illallah eh xel la bëri da koo nax bëri na bëri xel da koo nax ci ay Mamor Mamor sama iPhone eh sa iPhone Mamor yaay sama yaay baax na baax na lamb yi dama si am cër alhamdulilah rabbil alamin Ama Baldé laa soxla Ama Baldé Ama Baldé man Ama Baldé laa soxla sama yaay mën a bëre Zal Zal arbitre na Takké ba Takké suy na la mu yoroon Takké bu lamsaar féete gauche Força bu Fass féete droite yee Takké doomu ndeyu si taag Maama Lamine doomu ndeyu bu laal moo ngongu taxaw féete gauche waaye Força bu Fass doomu ndeyu Serigne Ndiaye de ak baru 100 pour Grand Dakar ak Baara ak Força ak Boga. mu ngoongu taxaw Matar soufflé na waaw waaw du mën a ñàkk ñoom ñaari ngi sore boo xoolee ñaari njool lañu ba pare ay mbër yu am poids lañu nag waaw par rapport ak seen âge ak mu ñu toll da ngay xam ne ay poids lourd lañu ñii waaw sori wuñu luur yi lool força jiital pied takke jiital pied droit muy fausse garde Forza garde normal du pied gauche ñuy lewaatoo di xoolante ca kaw ne jàkk bët ya di xoolante si gilma lay seen na loolu xanaa ñu ngi ñëw ci sunu côté ci ruq saaku yi maa ngi nuyu xaadim xaadim jawala xaadim balla mu ngi ci kaw toog ak laay bu faas laay bu faas siiri nday assu yee nuyu naa la siiri nday assu bu faas sa maa ngi di bëre di bëreeg mërëm Sora Malick bu Lamsaar mi Siri Yaama Ndiaye. ñaari mbër yi bële leen nee eh, taw waa lii lan la lii mooy lan taqe foo jëm taqe foo jëm taqe foo jëm lu xew jàppante nañ ca ruquba eh takk na ko. Eh, da koo bëgg a biij da koy wañ forsa bañ na forsa bañ na. takk na ko lank kandaare takk sakk ci ngembu li. waaw bu mu dëgër. waaw waaye forsa sakk bu mu dëgër. takk nañ ko. takk bu dëgër. xamal looy def kon. takk baa ngay tas. ah am na koy sot. ràccal bana faas. waaw ràcc de wax na ci ràcc ak a baax ci laax bu tàng. wax na ci lu tàng de. ràcc ci laax bu tàng rek la baax. la waaye noonu la baaxee ci làmb. wala dëxin. bu dëxin gu tàng wala laaxu bi sax. mbaxal mu tooy nag. mbaxalu saalum mbaxalu saalum sax day weseng. day weseng waaw. kooku gerte gu noof laay lay doon. mbaxalu saalum mu neex gëj naa koo lekk Babacar. ah da ngaa gëj saalum. wala loora. loora waaw wax nga. te ñoom man mbaxalu saalum. kon loora loora noonu nañ ci aaye. ma loolu mbaxalu Saalum. kese la ñu mën a togg. maa la ko wax. Eh, loora waay ca mbaxalu Saalum ma. ak mbaxalu waaw ndeysaan mbaxalu. mbaxalu biiru xar. waaye maa ko bëgg. xam nga yooyu du mën a ñàkk day baax daa baax ci koy wax na waaw waaw. baax na ci ñun suñu baat yi lu tooy da cee. ba dëkk ba nga jógee yow moom instant bi ah, lépp jàmm ah defaral nañ mam. boo bëggee dëgg dëgg. toppatoo nañ ma ci ñaari fan yi. tey kay taala taala mënu mënu la moom. tey moom tey nee naa ko loo baat ma loo waaw lu mu baasee nga kub. fu mu ma kub. waaw. lu mu lu mu su lu mu lu mu waxi ma suul. waaw daf mel ni tey sa yàgg gën nekk ci forme. non la ñàkk tey Lamine du mën a kër ga laa jóge yow itam. Ama Baldé Siteu de sànq ci groupe ci ci géew bi lañ daje. neexal nañ fa mbaadu. neexaluñ fa yaa fa nekkul woon. oh loolu rëcc na ma ndeysaan. yaa nga ca kaw booba. waa nga ca kaw ñaar ñooñu seen diggante xam naa bis dina ñëw dina am maa la ko a ñàkk. na ñu yónni yàgg rek dina dina ma sax. Zil Balde Zil sunu waaja waay ñaar ñii nañu bëre waay lii jeexalul lamb waay xam nga taqeeg Forza 2 lii jeexalul lamb waay. songu la ndax mën naa sotti foofu waaye ndengeñ na de forsa ndengeñ na de forsa ndengeñ lu mu bëgg a def eh lu xew ah loo ci mën a dégg seen combat bi de mu ngi bëgg a yàgg mi-temps waaw. daan faq am daan eh dóor na ko tànk yëful la de pad waa ñaar ñii. ee eh, waay ndaw waa lii lan la waaw waaw waaw taqee nga ko bëgg koy wan boppam de taqee nga ko bëgg a wan boppam hypercule ee eh, da ngay ñàkk taqee taqee da ngay jël troisième avertissement ngoongu Forza ni mu gagné ko neexul Talla ni mu gagné ne moo ko neexul Forza. waaw am na lu ko métti trop trop trop trop ndax bi mu rek. waa Fass yëpp dañ ko dañ dañ ko yuuxu ndax xam naa bëgguñu woon combat bi demee noonu. lu waral jooy yi lu waral jooy. Babacar Babacar Badou Badou ñu yàlla na ko yàlla fay Badou kii nii Babacar Forza 2 du kenn du man Forza 2. parce que mais tey tey tey lan moo tax bëriwoo tey. non moom bëriwul bëri ñaara maa ko doon tax bëri taxawal nga dëggal sa bopp. yow est-ce que physiquement pare nga yow Forza. barke alxuraanu karim bu dee li may wax amul yàlla ma teg si lamb Babacar dama am additeur bu méttee métti. billahi wallahi taala. suba suba xam nga ban heure la xam nga damay bàyyi lamb trois ans presque deux ans et quelque muy suuxaale ak barke kon loolu nga kon loolu munu ma ma xaw ma lan la quoi mais kii nii tey jii suba dama naroon ne damay bind certificat médical cëmm ji moo ma ne bu ñu def loolu noonu. nan dem mais Babacar mbëri nan taxaw dëggal seen bopp lamb ñaara koy def dama ne. léegi foo jëm ndaw bu yaroo tey te ndey li liggéey kër baayam su ndaw yaroo tey te ndey li liggéey kër baayam lu mu am jommu ko. léegi foo jëm ay yaay. léegi foo jëm sama pap waa Mirina xam fa laa jëm nees forsa du combat seen écurie laa jëmaat promoteur yëpp laay waxal àdduna ku ma woowul ne man nees wala Siteu du ma bëre. Talla Ndiaye daw di wër a ngi Talla na ko Talla bu ma la wëroon nooy def su ma la wëree. Babacar dama lay war de. Kool wër na Gandigal bagaas yaa ngi nii Ousmane a ngi Gandigal Ousmane lay jeex na de. waaw sa pare nañ kay dañuy xaar na lu koy tàllal xaaw yee Kool. man nga ne combat njool ak ndaama la taala kaay ma xool kóol lu muy tak ci tànk yi cey taala jaay xaawa ngi kóol kóol lay jeex na de ndam rek ndam rek incha allah lan li nga yor ni ah eh arbitre ngay souffler temps Ousmane Gandiga la ngongu Ousmane ngongu Ousmane Gandiga droite la ilaha illallah heure lay laaj 19h55 19h55 Lamine waaw juróom ñaari waxtu tegal na juróom fukki minutes Ousmane Gandiga ku mën a këpp yalwaan ngi nii waaye tey ndax dina këpp yalwaan kool bu sab na lay bëreel kool nga taxaw ca kaw di ko xool yoo xam tëgguwul ne daa njool. daa maa xam loolu. dafa njool a njool a njool. njool ba wàññi denc. waaw Ousmane Ngongu ndeysaan. Ousmane kan la eh, la fi mujj a daan. bébé Diène mi daanoon Reug Reug. wallaay lu leer laa la wax. gaañ na fi tamit xale bi ñuy wax yegg si. waaye Reug Reug fayu na de. waa police yaay jàll de. sécurité baay jàll de. loo ci man Talla Ndiaye dama rek ci sa filma biram ñun ñaari ngi nii. Ndiol ak Ndaba combat rapproché mooy arrangé Dame Ly waaye njool lii la mu ca xase déclenché des hostilités dana naqaree jege waaye est-ce que bu jëlee tànk bi mboot xeju ci ndax nam ko lale daf may niroog njool muy mboot Babacar. wax nga dëgg biram bu jëlee tànk bi boo xoolee tànk bi war yaakaar nañ ne war na mën a nekk mboot kat moom Kool. Kool moom mën naa wax dëgg yàlla am combat yéex moo ko xaw yàq moom dafa yéex waaw. parce que nag boo xoolee Ousmane Kame wax la nag. mbër jaaxalu ko de xaw xam nga loolu am déet Ousmane Gandigal waaw mbër jaaxalu non màggatum koc kororoj la lu leer la day këpp yalwaan ak mën a këpp yalwaan da ngay yalwaani comme say jamono boo yalwaan yor sa pot ah. daje kam ponkal mu nangu ko mën nga yalwaan sax bu mu yàgg mu por affaire bu rek say loxo waaw daanu nga yàqu nga yàqu ba faaw keroogee doo añ doo dee reer lay dangay ngay fande maa la ko wax bu dee añ nga dëñee añay dëñee wala reeray fande reeray fande Lamine añay dëñee loolu li ñu wax li olof ni ñuy wax gars yi xamuñu ko. non ñun bawal ak njàmbur la ñu boole. kaw kaw yi ci Brésil ñoo ko xam ñoom eh. ñoom ñoom ba Serigne Bara. ñun Serigne Bara Argentine Brésil. waaw waaw. ak ñoom Ndongo Fall Italie. du ma ne ñoo ñoo xam. kaw kaw pire la Ndongo. ñoo ñoo xam Fande. wallaay ñoo xam Fande. Ndéego xam nga ko. Ndéego mooy ndékki Lamine. a indaale andi leen ñu teg cere ji. ñi nga xam nga Ndéego. ah boobu réer na ma Babacar. Ndéego mooy ndékki biram ah. ndil ndéeguli boo ko ci kër ndekki ga la ñuy laaj. waa xam nga ñun am na biñ ci wax boj ta. waaw ah, yéen séeréer. maanaam boo demee ba récréation. nga ñëw rek wut si cere ja. am noo ca def. muy dafay mel ni ñaanee lu ndekki ay 10 ay mais cere séeréer ko moom wala tukulóor. séeréer moom cere la laaj ko. Ah, tu tukulóor du bay la min séeréer lay bay cere. waaw mais cere dañ koy dugub dañ koy jaay arbitre ba àtte la di wax ak. su fekkee am na lu muy suuraale ci Ousmane Gandigal rek dana ko trompé. waaw loolu Lamine mën naa nekk waaye naa wax doole ji nag boo yebee tey ci ndax Ousmane mii day liggéey. waaye leen li nga wax avantage su kóol la mooy jéem a triser combat. mbër da ngay triser combat. ndax yaakaar naa ne combat bi moom bu jeexee ci nii. nit ñi danañ ko yedd ay mbokk. waaw non amul ma dem te ñëw Ousmane moom lu ci namu lu ci kóol bëgg rek fekk ko ci. waaw parce que moom mag la. moom mu nga jóge ba Gandigal. ñoo fekk si la Dakar. ngay xale. ah bu ñëwee da nga ko war a diriger bëreeg moom. dafa tardé sax boole ci. waaw waaye est-ce que Ousmane neex naa diriger. a ah, fit fit wi danaa moom. xale yi ko doon diriger da am na lu ñu ci jëlee. ni nga ko gis de fit wi ardo. ñii moom ba boobu leen gis nga. avertissement Kool avertissement Ousmane ñaar waa le buñ sàgganee leen 15 pour cent dem de. bu ñettee. Ah. fukk ak juróom ci eh door na gis lay wax gis nga Ousmane. problème bi nag mooy Kool du ko mën a song. du ko mën a song ah, a Ousmane taxawaay bi moo doy waar. Birame. kool kool yónnee na ko waaye Touba Dakar. waaye li ko Ousmane ñam sàng saf na de. xam nga Ousmane. inte yooyu muy dóor. dañuy gaañe. na nga seet digganteem ak yeneen gars yi fi jaar. ñoom ñett rek ñeneen ñëpp. foofu la leen jaar. ba déstabiliser leen. bu jar a bàyyi xel Ousmane Gandigal mbir mu doy waar. su ma nee faraab sa xel ci la lay nekk. faraab. ah Lamine du ma ko wax. Lamine faraab. faraat faraat na ko nag ay Lamine sa jikkooy doom nga ji wax nga dëgg faraat de dama yow fajar rek sama xel nekk ci ci faraat ma ne doo wax duur wala mu ngay ñam wala cokkaas faraat faraat ma ne ko nga fulle de waaw waaw ku nekk say bagage 15 pour cent day dem Ousmane ñetti avertissement 15 pour cent biram waaw 15 pour cent Babacar ba pare nag na la wóor na ñaar nga dese même bu temps bi jeexule ba amee cinq avertissement su boobaa dañ lay daal di disqualifier selon le règlement Babacar. kookoy biram mën a at sa la en même temps nekk Leewtoo Lamine eh taw moot eh! moot nañu Ousmane Gandigal moot nañu Ousmane Gandigal moot nañu Ousmane Gandigal mboot eh, ma rëy ngi lay bëggee. tey de yaa yor micro senegal Sénégal tey. waaw. xam nga nag noonu la sama yëf la. foo na yenn saa yi nag. ma ñëw jàpp ci liggéey bi xale yi di liggéey. waaw loolu la rek ah. ñu ngi ci ciy ñaanal. waaw yéen maa ngi leen di ñaanal xam nga ñëpp a baax. dañuy defar rek pour mu baax. yàlla na nu yaa presse bi yëpp ñun ñëpp benn nanu liggéey rek pour ce pays. Gandigal lu ko daan. waa ji da man. waaw da man arbitre bi bi mu joxee. dafa jox kii traversé dafa jox kii ma ne ko kon du neex il faut kenn ki raw ëppale kenn ki pour mu ñu mën a bëree bi nu ba mu xam ne jox nañ ko trois avertissement mu ne naa jeexal combat bi mu daw fekk fa waa mot ko. mu mot ko waaw mais waa Leewtoo nañ ci yow. maa gën a bëgg ci ñoom. père Beka yeeg. Babacar bàyyi ma. waa Talla Ndiaye. Talla Ndiaye tey ñu ngi production idaali ñu moo fi woote won yaa ngi may déggam lamb ju neex a neex. Forza 2 gagné na taqe par avertissement Ousmane Gandigal kool da koo mboot ñool ak ndaama mu daw di ko jëli mu remplacé ko ak mboot mboot ko daan ko jëli bu rëy loolu moo rek lamb bëre la mais nuyu nañu ñëpp ziar ñëpp balu ñëpp taala nuyu naa la yàgg nuyu naa la biram nuyu naa la Modou Mané nuyu naa la nuyu naa ñëpp yàlla na jàmm yàgg Sénégal taala Ndiaye xol bu yaram wu sedd barko yonent bi ah dut sek kenn du moom sunu papa jooju yàlla na gudd fan.